kontaan ci yéen ndax tey li ngeen def dafa rafet ñoo fekk moo Dieng xale buy doog a door baax tey xolam rek moo ko may li xolam rek moo ko may lii te day am jàmm muy sama dëkkandoo nag ñu bokk dëkk muy ku baax ku am yëg ci nit koo xam ne ne oyof na moo waral tey ñu nit ñu ñëw pour dooleel ko. loolu eh, gëm nga ne xale bi mu ngi yoon te kenn du ko téye. non kenn du ko teye macha allah am na ñaanu waajur am na ñaanu ñoom Ngoné Ndour waa presse aar ñoom Ibou macha allah day dem. kenn du ko téye.